asalaamaaleykum mbokk internet ñuy seetaan fu ñu ci àdduna bi tey naa la di nuyu mbokku bi ñëpp naa la tey ñu ngi fi nga xamante ne tey mooy cité Labat Fall kër ko dalal fi nga xamante ne tey mooy ci internet yeeg jàmm ji info ak Dakar Midine Pape Sarr naa leen daanaanu làmb la yàgg na ci làmb xam ci lu bari moo tete Eumeu Sène ba Eumeu Sène jël roi mbër mu ne Pikine tey Pape Sarr yóbbu ne la toujours dama la ni monument Pikine la nit ko xamante tey nit ku baax la di jàppale tamit ay doomu Pikine Pape Sarr yemul ci mbirum làmb kese Pape Sarr képp koo xamante ne feebar nga tey ay don Pape moo la siy taxaw ku ci mel ne Jibi Ama Balde Pape Sarr na ko ku ci mel ne ki nga xamante mooy Zil Balde Junior dem si yàlla ci ko ñaanal yàlla suuf woyof ci kawam moom ak xale boobu noonu tey ba ku ci mel ne Boy Malika mii nga xamante ne dañu ko dóor bal euh, ci dënn depuis depuis jamono couvre-feu bale passé ba si Pape jotee gis nañ jéego yi mu ci def yu am solo ba tey am na ñoo xamante ne jël nañ xale boobu noonu tey en charge naa leen Pape Pikine bu Moussa nekk si jàkkaare Pape Sarr lañ doon gis moo doon defar Pikine problème bu Moussa am Pape Sarr génnee na lañ ci te xëy na bu ñu wax yi nag mën nañ ko yaakaar leneen mais fii ku jëf ñu gis ko mm. mais Pape Sarr tey dañ dalal Pape Sarr mi nga xamante ne mooy doomu day Alain tëgg bay am solo nag <laughs> waaw Pape Sarr ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mm-hmm. ñi ma fi fekk di nuyu caméraman di la nuyu. di nuyu sama tooma bi. waa Dakar midi di nuyu waa jàmm ji. xam nga di nuyu tey waa kër gi. Mhm. muy waa kër Lobaat. Mhm. xam nga di ñaanal tey kilifa bu fi jóge tey muy suñu maam. Mhm. di ko ñaanal yàlla na ko yara yàlla xare àjjana di ñaanal suma papa tamit yàlla na ko yàlla xare àjjana di nuyu suma yaay di nuyu maire yi ku mel ni goo ami goo awdi ak suma nijaay ak suma rakku yaay yi nekk France ñoom ñu xam nga Kowri Labaat Mama Labaat Ibou Sarr ñu nekk même fii si sama mbokk yi di ñaanal suma yaay yàlla bàyyi ko fi suñu kanam di nuyu Seex Faal ma Jibéeri Këccël Amady Maari kër gi yëpp xam nga di dem nag ba sama dëkk suma dëkku yaay muy cubaleel xam nga maa ngi lay nuyu ñoom ñëpp di nuyu sama waa dëkku papa muy bokki waa boggee waa duungeel Mauritanie Nouakchott képp kuy tey mbokk Pape Sarr nekk Nouakchott rek Mauritanie man nuyu naa leen di nuyu suma papa mu ngi foofu tey. di ko ñaanal loolu muy yootu muy président Mauritanie. waaw yàlla na ko yàlla may muy Ibrahima Sarr. mooy sam papa. la. Ah waaw moog sam ñoo bokku ndey ak baay. tey <laughs> waaw mu ngi foofu tey xam nga di bëgg di bëgg yàlla ñu ngi ñaan daal lépp lu mu dugg ci politique boobu yàlla may ko si. sam papa xam nga muslim ñoom ñëpp ñoom Binta. Mayram Sarr sama sœur ñoom ñëpp sama papa yi nekk foofu yëpp. xam nga di dem ba Almeria nag dafa am samay mbokk yoo xamante ne tey ñu ngi fa samay xarit mhm. xam nga ku mel nii ni Mamadou Fadel moom mu ngi ba Almeria mhm. di nuyu mataar Gueye mhm. xam nga moom rakku kii la euh, rakku ñàmbe la Matar Gueye maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu Seydina di musicien bu mag Seydina Ndiaye mu ngi moom musicien bu mag la maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax di ko nuyu di nuyu Mbaye Tos di nuyu Pikinois yëpp jërëjëf Pape Sarr kaddu yi am na solo lool yi nga xamante ne hmm. ne tey ci làmb ji tey hmm. ay jeunes yoo xam ne espoir làmb lañ ci banlieue lañ dëkk yaakaar dul yaakaar nañ leen dul làmb tey nga tëggal xale yi tey Pape Sarr tey làmb jooju noo def ba dugg ci waaw li ma def ba dugg si mooy dama am dama nekkoon cité Hacienda hmm. yàlla def ma nekk fa di daan sama doole yor fa suma dibiteri di nuyu waale tey big di rappeur tey moom moo ma tëjjiloon dibiteri bi foofu. dégg ma dem ba yàlla def na tey am na ñoo xam ne tey ñu ngi ci réew mi yor ay ndomba tànk. tey si dibiteri bi lañ daan toog. tey yàlla may leen ay ndomba tànk ci réew mi. Alain ci la bokk. tey muy bëri na ay boo yi nga xam ne tey man. bëgg bëgguñu sax ñu wax seen tur tey ay kilifa lañu léegi ci réew mi nekkoon ay booy yu ndaw li ma la wax nii 94 95 96 ba 97 falaa nekkoon 98 falaa nekkoon Balla Beye numéro daan ma fa fekk jour bi mu daanee euh, manga jour bi ko manga daanee safurlaa Balla Beye veille bi ci man la ñëw alain boobu nag tey fa la ko virus bi jàppee moom tamit muy doomu xam nga faajut mm-hmm. bëgg làmb dégg nga ñun fa daan nekk bokkuñu woon nag moom Yékini la faraloon man ma faral man ma faral Balla Beye baabooy mhm. xam nga ñun nekk fa ba nga xamante ne dañ doon meroo mhm. mooy Alain bii tey tey gis nga àdduna di dox ba mu génnee xam nga débloqué mook Jumbo ay millions mhm. ñëw xam nga siggil ma defal ma lii nii kon mun naa la ne man Alain mooy suma xarit. tey am na ñu ma gënoon a jege Alain. Mm-hmm. defuñu li mu def. moog Jimbo. Mm-hmm. kon du ma def lu ñaanal ko. Mm-hmm. parce que tey génne presque ay vingt et quelques millions. teg ko sa loxo. nga dem di ko jox ay mbër. xam nga tey xejoon na feneen. dëgg la munoon na dem tabax ci ay kër. wala génn wàccee ci ay conteneur am wala def ko si boppam. mais xam na ni Pape Sarr bii. am na fu fuñ jaar. man ak moom xam nga xam na ne lii la Pape Sarr bëgg. tey munoon na ñëw xaaj xaaj na ma Pape saar jëlal lii dama defi lii. Mm-hmm. mais dama ne ko man làmb laa bëgg. Mm-hmm. xam nga te. Mm-hmm. yàlla def na tey ñu nekk ay ñu nekk ñi nga xamante ne tey mosuñu réeroo. ñu bëri dañuy foog ne nag damay réeroo ak jimbo wala affaire yooyu parce que làmb moo am loolu yan saa ay ñu mu wax lii ma bañ. mu moom ñu defee ko neneen. <laughs> loolu day am mais nit ñi. dañ ci dañ ciy indi yoo xamante ne parce que ñooñu sumay frère lañu. Mm-hmm. Jimbo tamit muy nit ku baax. xam nga muy liggéeykat di jàmbaar ma koy nuyu moom it bu baax a baax a baax loolu fa la affaire bi jógee. Mm-hmm. ba ren waa rent DKR la te du Jimbo kese ak Alain. des na Alassane Cissé muy homme d'affaires franco malien bu mag mu nekk Paris. Mm-hmm. moom tamit loxo mu ngi ci. xam nga ma ci nuyu ñëpp di nuyu waale aussi Ousmane Cissé. mu ngi ba Atlanta moom tamit tey ku ma jàppale la. xam nga tey taxaw na rakam. xam nga fii la nekk fii la yaroo fii ci koñ bi xam nga juddoo fii yar ma xam nga mooy bëgg tànk yi muy dox noonu man ma koy dox parce que tey mu may jàppale bu baax a baax a baax a baax xam nga Ousmane Cissé mm. xam nga vraiment tey taxawu nañ ma daal lool loolu la. tey man. Mm-hmm. waaw tey man xooluma ay Gaston xooluma xooluma keneen man Alain rek laa xool ak sama bopp. billaay ak mooy ci lamb ji nga xam ne ñu ngi bëgg def 8 kilos. Mm-hmm. ci am na combat bu mag ba xamante ne xam naa ne muy Eumeu Sène euh, Eumeu ak Lac de mm-hmm. xam naa ne moom confirmé nañ parce que Gaston le 4 avril da koy tëgg 8 kilos. yéen ay promoteurs yi ndaw ngeen. ngeen tëgg ko yan responsable la jël xam nga tey ñu mag ñi rek ñoo fi nangu huit kilos. Mm-hmm. promoteur yu mag yi. Mm-hmm. ku mel ni Gaston mm-hmm. tey xëy na Gaston mu ngi yaakaar ci li mu tëgg tey ci ay sponsor ñun amaguñ ko comprendre nga. huit kilo comprendre nga ñun ànduñu si. munuñ parce que attanuñu ko man Pape Sarr bëgg naa tey combat yi ma taxawal déwén ma taxawal ku mel ni Sa Thiès wala ma jéem a joxe avance Ama balde loolu man bëgg naa ko mais tey buñ ñu defee huit kilos nii te ak làmb ji nu mu demee nii nga ñëw bugg indi avril amoo sponsor amoo dara di koy yaakaar ci billet ak ay partenaire ak ay ay ay parrain loolu avancé wul làmb man janvier laa taxawal combat sama combat amul benn combat bu ko ëpp coow kan ak waxaat ko fi Marley Nicoré la. Mm-hmm. écurie la. Mm-hmm. mu ngi nekk école de lutte Papa Kane. Mm-hmm. Nicoré la ñaari defet la am. Sa Thiès a ko fi daan Tyson 2. Nicoré mooy ma taxawal combat boobu taxawal Eumeu Sène Junior. Eumeu Sène Junior ak Kalma Ndour. ma taxawal mobile 2. Bour lépp defuma ko ay grand combat benn journée laa ko def. te mbëri te mbëri yo grand combat laa def. taxawal taxawal Pakola ak rakku rëg-rëg Pakola di doom ci amaa Balde. Mhm. Papa Kan numéro 2 mook rëg-rëg a bokk ndey ak baay ma boole leen. ma boole buusita. Mhm. ñëpp xam nañ ni buusita day feesal Ibamaar. ma boole ko <laughs> <laughs> Malick Ndiaye 37 fu. non non mais grand loolu. waaw yéeme kay mhm. kon tey événement yooyu noonu du ay 8 kilos laa koy tëggee fii. dama fas yéene ànd ak waa rent DKR rek ñu dem ba Gambie. waaw. dëgg ko mais est-ce que amateur dinañ jóge fi dem ba waa yow. lamb <laughs> lamb dimanche a ngi ni demu leen déggoo lamb dimanche bi fi am stade Gambie daa fees del ñun guddi ñu toll nii Gambie moo ñu gën a dund lamb waa Gambie non non mënu mënul nekk billaahi wallaahi watalaay mm-hmm. Gambie am na am na rock énergie mm-hmm. écurie rock énergie waaw am na écurie Balla Gaye Gambie am na Taï Singa Gambie am na lépp mbër yi ngay dëgg fii yëpp ñu ngi Gambie mais est-ce que entrée yi ñuy def fii. waaw waaw prix bi. waaw lu mu nar a bokk ak prix waa Gambie. non benn lay doon. day ut suñuy partenaire ut suñuy sponsor dem bi lii lii du continuer lii nii ñun lii man mënu ko continuer parce que tey du ma ko digal sama gars nii tey ñu ngi doog a dugg ci làmb nañu xool may may may may may ñaan may ñaan Matar Ba. Uh-huh. muy ku baax. man duma ko offensé si dara dara dara parce que même bu nekkee benn fan rek. defal na ma ko lu baax. mooy kilifa gi waaye mooy suñu kilifa. Uh-huh. muy ku baax. Uh-huh. parce que keroog tey bii suñu rakk ji daanoo feebar muy gilbalde Balde Junior gis nañ ci taxawaay bu rafet bu mu ci def. yëkkati ñàkkam. tey loolu mu ko si def bokkul ci budget sport. dëgg la dégg nga. dëgg la xam nga. voté ko fenn. Mhm. ñu bañ di réeroo ci kilifa yi tamit quoi. Mhm. tey joxe du force. Mhm. Matar Ba dafa génnee alalam génn bi nekkul loolu mu def defal ci xale yi noonu ñu feebar du si nekkul ci benn budget. daf ko neex rek mu def ko. kon dañ ko war a jaajëfal. di ko gërëm di ko sant. ma gis tamit kon man warutuma waruñu ma jox micro sax may wax ci Matar Ba loo xamante ne lu ñaaw la. parce que gis nañu tey jibi aama. taxawaay ba mu ci taxaw. mu ngi fii barki démb yàggul. li ma yàlla dafa def li tax ma gën a jàpp Matar Ba dama demoon ànd ak benn site. bëggoon dem jëli ji interview kii kase bu mbuur. kase waaw kase ñëpp xam nañ ni raaya réew mi la yor. waaw 2013 ba tey mu ngi tëdd fi mu tëdd gisuñu kenn ku ko dimbali mhm. dégg nga teewal na Sénégal fu ne mhm. mais bi ma ñëwee di ko laaj mu ne ma Pape Sarr man benn ndimbal mhm. benn ndimbal laa am muy Matar Ba moo fi ñëw dimbali ma kon kooku lum ñu dig rek nañ ko gëm di ko ñaan di ko ñaan mu wooñu ñun ñëpp ñu waxtaan parce tey li Gaston mën li Nicole ay mën ñeneen mën ñun mënuñu ko ah, loolu dëgg woo ñun ñëpp promoteur yëpp. xam nga surtout yéen waaw nañu woo ñi nga xamante ne tey. amuñu doole noonu. bëgg mm. nañu tey xam nga tey xam nga Gaston du fi def li nga xamante ne Gaston li mu fi def. fii ak cent ans. Mm-hmm. doo fi gis promoteur bu ko def. dégg nga loolu dëgg la moom waaw dañuy waxante dëgg li mu fi def doo fi gis promoteur bu ko fi def. Mm-hmm. dégg mm-hmm. lu ne la def événement yu gën a rëy Sénégal Gaston Mbengue moo ko tëgg mais tey. ñu ngi ñaan mu ubbil ñu stade bi même bu nekkee dañuy teg benn nit. Mhm. teg tëb benn chaise keneen teg ñun loolu la ñu ànd.